daa di àndandoo ak conseil départemental de Rufisque pour benn daa di jàngat naka la nit ñi di dundee di am lu ñuy lekk ci biir département wu Tëngéej ñaar ba ñu gisee ba ñu demee ba jàngat loolu daal na nag léegi palang bi naka ban palang lañu mën a lal pour que ñi dëkk Tëngéej am loo xam ne dinañ ci mën a dund dund bu sell te yàgg ñetteel bi nag tey

daal di ciy génnee plan alimentaire teritorial daal di ne nag palang bi léegi comité bii lañ sos comité bi ni ngeen ko déggee Souleymane Ndoye président conseil départemental moo xaatim daal ne comité bi ba ñu waxtaanee ba ñu ñëpp ñu déggoo ñii ñoo ci bokk mu daal di ëmb ñëpp nag li ko tàmbalee ñiy def jiwu teg ci ñi nga xam ne ñooy béykat yi teg ci ñi nga xam ne ñooy transformateurs yi teg ci distributeurs yi teg ci jaaykat yi ñuy produire secteur privé bi daal di ci teg consommateurs yi ak gestion wu déchets yi ñoom ñëpp nag mu daal di leen boole ci benn kuréel daal di ne yéen laa bëgg gën saytul ma affaire bi lolu itam nañ ko rafetlu esprit inclusivité bobu manam sax bi ñëpp bokk ci. dajé bi nga xamante tay conseil départemental woote nak euh, si kilifteefu président Souleymane Doy moy li ñu dajale mooy taxawal li ñu tuddee. Euh, comité de gouvernance euh, euh, bi nga xamné moy mooy saytu doxal li ñu tuddee plan alimentaire territorial plan alimentaire territorial bo boo koy seet si ñetti yef le teunk bi ci jëk moy fexé ba ñi nga xamante ne dañuy bay mbayum nord légui ñu mëna bay té amuñu doolé manam mbayum nord si périmètre yu ndaw lañ koy def périmètre yoy nak mudi exploitation familiale

bi si des mooy aussi fexe ba euh, si biir département Tëngéej biir Dakar ak euh, Sénégal wala sa bitim rew ñu fexe ba nit ñi am dund go xam li ñuy lekk mu nekk lekk gu baax lekk go xam gu sell lay nekk lool moy ñetti aspect yi nga xamantene ci le la euh, li ñu tuddee plan alimentaire territorial ci loolu la tënku te loolu mo doon waxtaan bi yalla def na nag taxawal nañu comité boobu comité bi képp ku nekk si Tëngéej te yëngatu si wàllu mbay ak likeniru ko niru yaa ngi si biir ñi nga xamante ne ñooy bay ñi xam ne ñooy jaay mbay mi ñi nga xam ne ñoo koy transformé ak ñi nga xam ne sax ñoo indi financement bi ak ñi leen di jàppale jóge bitim réew mu di partenaire technique ñoom ñëpp ngi si biir comité bi ak wa administration ñëpp donc yàlla def na taxawal nañ ko ba pare liste mooy liggéey te su loolu la ñuy jublu bu soobee yàlla. pour plan bi nag euh, pour mu mën a taxaw pour dëgg-dëgg ñu mën a li ñu bëgg maanaam euh, accès yooyu ñu mën ko réaliser ba ba li si li si jëkk mooy gannaaw bu ñu taxawalee comité bi il faut que aussi nit bu bëggee bay il faut que mu am ndox ndox moomu nag problème la boo xamante ne bi bu bu jàmp la parce que boo seetee li ñuy produire si ndox nit ñi bëgg see naan di sangu ba ñu bëgg see jox ñëpp buñ ñu si bëggee jox baykat yi aussi euh, euh, lu euh, lu xaw a jafe la mais nag il faut que ñu jàpp si ba baykat yi xam ne mbayum noor la ñuy def dañuy roose mais léegi ñu mën leen jox ndox muy ñu am bis des mooy suuf parce que lu nit bëgg-bëgg bay mais il faut nga am foo koy defee euh, euh, te li que constaté si Tëngéej mooy euh, fi d'un daan béyee maanaam daaw boo jëloon bu fekkee fukki la bu ñu dañ naan ñaari hectares yi tabax hectare bi ak lu tabax Montpellier war entre 2016 ak fi ñu 7 si surfaces yi nga xamné amon nañu manam témèr bo jël juróom-ñaari euh, hectares lolu déjà tabax nañ ko ba paré té lolu moy continuer donc il faut que ñu maîtriser suuf si fexé ba nit ñi naam amna programme pour nit ñi dëkk habitation mais ñu fexé ba ñi nga xamné ñu ngi bayit ñu sam leen euh, protéger bu ñu continuer di bay lolu nak amnañ ci yaakaar ndax président de la république créé na li ñu dak euh agricole communautaire bu Sangalkam mu di hectares yu bari yo xamante ñi nga xam ne bëgg nañ bay même bu fekkee fii xaw na wàññeeku